xam nga man 92 ba léegi ñu bëri jaar nañ sama sama ginnaaw di dóor bu baax ci samay événement événement ñëpp xam nañu li muy jar ñëpp xam nañu li mu mën a indi léegi koo gis am na sit di wuti vue di jëkkantey vue yu bari di jëkkantey ristourne ci ci yow dépensé woo dara nit ñi dañ ñu ci ciy dund ci kaw nit ñi yow su suñu sañoon ngay tëgg bis yow pertal ñoom pertal mais ñoo am meneen pexe mu nuy wut pour gagner de l'argent muy perpervue bi moo tax bii passé ma ni télé yi ma accompagne yëpp doon télé bii da ngeen di occulter l'international ku nekk bitim réew bëggee seetaan combat bi day fay te loo ca beneen yoon ca loolu li tax ma fayloo may ko waa Sénégal parce que sama kàddoo ma jiitu woon ndax huis clos la ñu naroon def bi ne dañuy def huis clos ma ne comme engagé wu naa ba pare dama koy may ñi nekk biir Sénégal yëpp fu nit toog soo amee TNT mu mais doo ko seetaan ci canal moo tax sama partenaire télé yëpp dama leen ni kenn du ko seetaan ci canal nit ñi borom site yi commencé fay parce que ñoom télévision yi sax mënatuñoo liggéey la daan am amatu ca télévision yi dañu am personnel ay centaine de personnes yu ñuy fay làmb ji di fay ay centaine de millions ñoom seen benn caméra su ndaw la ñu yor fees dell ci géew bi doo gis kenn du gis sax li mbër mi wala suñu ko bëggee defal dara ba pare ca di ci gañe ba pare ni nag ni kenn du ñu empêché liñ ciy gañe ñoo ngi koy suñu bëggee nañ tëgg làmb moom nañ koo di tëgg làmb sama làmb sit dootul fa dugg Eh, ku ko bëggatee seetaan toog sa kër da ngay fay parce que lamb ji di ñëw même per bi danga koy def ci biir Sénégal. per yow kon business bi daal fu mu toll nga jiite mais mais ku dul business doom ji bugaan di day business maanaam mu ngi toog foofu. <laughs> day business dafa jógee ndar bi muy ñëw indiwul dara. business ba yàlla dimbali ko yàlla na yàlla na gën a bari mais lépp da koo def te koo teg ci yoon. di ci créer emploi di fay. pourtant mënoon naa yem ci site rek benn benn kii bu ndaw nga xam ne du leen fay du am benn employé di usurper ay image yu jaamu di yóbbu di ci am astut mais li muy def lépp pour fay ay personnel yu bëri la pour def bokk ci développement réew mi mais amee sa benn appareil bu ndaw kenn mënul la noppalu mille sites ci biir réew mi ba pare nag naa fekk yi bëgg leen a supporter di wax ni tax ñu loolu mais mais mais mais Gaston per view boobu est-ce que euh, du am ay inconvénients ci ci bi parce que ñu bëri ñu ngi posé wu cette question. bii passé zéro faute la def. Hmm. parce que dañ ko tegul woon ci yoon bi muy soog di door. bon début bu ne dafa difficile bi muy soog di door na am ay problème ay fay mais bii amul benn faille le contraire bii di bloqué nañ ci ay sites yu bëri. ñu bëri bloqué na leen fan yi yëpp ñu ngi may woo di ma dimbali ñu débloqué nu te kenn laaj dimbaliwul du ma débloqué kenn. def bloqué nañu ñu bëri parce que ñun depuis euh, Angleterre fa la ñuy bloqué ku ñu ko wala nga amee sa téléphone wala ngay jéem a euh, live yu kenn xamul yooyu dañ lay bloqué danga toog bëgg a liggéey doo ko mën ñu bëri bloqué nañ leen am na ci ay sites yu mag yoo xam ni. absolument bloqué nañ leen waaw. benn instant sax déclaré woon nga fi fayit waaw euh, ba taxoon nga génn ci làmb ji tey nga ñëwaat ñëw jël date yi gën a baax am affiche également yi nga xamante ne am nañu solo lool ci làmb ji ñaamaguma tax euh, euh, waaw ci bi nga jot am le bi ma am benn laa jot maa ngi nii amee samay maa ngi nii amee dese ñetti combat wu ma dab amagoo dab <laughs> nga am moo gën a rëy ci année bi amaguma dab amaguloo dab mais nga am affiche yu am solo <laughs> fan nga rootaatee ba taxawaat ba tëggaat combat yu nga xamante ne ay centaines de million ñu ngi ko ciy tudd. Euh, euh, am fit rek ak ñeme risqué ak am samay pexe. ak ci période bu metti aussi. Mhm. Mm-hmm. ci période bu metti bi ma dugg ji am samay pexe. fii koo fi gis yi mu doon. waaw pexe bugaan ana bugaan bugaan sa pexe yi nga ubbee télé bi laa bëgg nga wax ma ko. Ah, ah, mënoo fi mu toll nii bugaan toog ko pexe. mënoo di jël comparaison ci bugaan. yow la ñuy poser question sama diggante moom xaju mais damaa bëgg mu wax leen. parce que yow yaa fi toog ba suñu bugg a toogee rek ñu dama ni pexe am naa samay pexe pour bëggal réew mi na ma ci réew mi ñaanal pexe yooyu parce que ma li may def lépp même su ma ci am ay milliards réew maa ngi bëgg kon boog bu nu bëgg a bëgg ba pare bëgg maa ñaanal samay pexe <laughs> nan ma bàyyi ak samay pexe comme ñoom ñu ngi ciy bëgg ñu bari jàpp ne dafa am ñu nekk sa ginnaaw. dama ni ay ñu bari jàpp ne dafa am ay nit yu nekk sa bu ko bu ko raay raayal ah ñu bari dañoo jàpp ne état du Sénégal moo ko ngemb actuellement. état du Sénégal rek moom xam na fi ñi eh, xam nga Sénégal ku fi am dara ñu ne état la ngemb. gouvernement yi. ñu ne guvernement la ngemb man état la ngemb Abdou Diouf laa bokkal. benn mu nekk fi président depuis pendant vingt ans mosuma lekk dërëmam. mais président. xam nga ne wax Ablaye Wade moom waxi nopp parce que faru moo nag Macky Sall sama rakk sama président la man ñëpp xam na ni liggéeykat la maa ngi samay pexe nag nit ñëpp amee pexe man opérateur économique la euh, apporteur d'affaires la mën naa lijjanti samay lijjanti même tey su ma état doon jox day fekk ma service rendu lan may jox. mais pas ci làmb. important. donc euh, du nit ñi ci mbedd mi ku ci ku jóg. journaliste bi mën a am service am keneen mën a am Gaston du am service Gaston li mu def ci réew mi ak ni mu bëggale réew mi ñi fi mbel mbeleeg di wax ak di karab karab yëpp defuñu ko fi dëggal nga réew mi moom loolu moom am na mais dañuy dem jëli oustaz Mouhamed Mbaye parce que ñoom itamit ci waxtaan bi lañ bokk laata may ñëwaat ci père ba laata may ñëwaat ci père may ma ngoone mu wax ma ci pay per view bi parce que ñu bëri suñu mag yi par exemple comprendre gu ñu système boobu c'est important également moom itamit mu jàngatal ñu ko <laughs> alors Mouhamed mbay euh, tey kan mooy sa gan ak euh, naka ngeen ñu nar a bégalee bégal téléspectateurs yi également parce que ñu ngi leen di xaar du bi sànq. koo xamante ni muy neex saa yoo ko sa bët xoolee sa xel dem ca sangu màkk ak Medina yonent bi sallallahu alayhi wa mu ngi noonu boo ko bëggee bégal laaj ko yonent bi sallallahu alayhi wa ndaw ñëpp roy ko xool ko lu mu am lu ne njool màkkaay ki ko ko may di sunu bàyyi Pape Moustapha Mbaye mu daal di ñu bégal soppee daal di kontaan ñu daal di jàkkaarloo nag wax sangu màkk ak Medina mooy kan Baye Moustapha yaa ngoog ñool màkkaa ngoog téléspectateur yaa ngi noonu tey <laughs> kay ñaari ñaari yi ma jàkkaar lool macha allah macha allah. Mm-hmm. Muhammadu Rasulullah.